jërëjëf mbokk mi ala kulli xaalin am naa lu aju ci nag gént jaaro gént ñu lay takal jaaro baax na bu dee da ngaa gént ñooy jaaro xaalis loolu yokkute la wërsëg la am am la bu dee koo xam da ngay dugg ci wàllu sëy ngay listixaar gént ñu takal la so ñu lay takal jaaro lay xamal ni boo am njariñ lay doon bi am barke lay doon ba tey jigéen ju ëmb gént ñu koy takal jaaro loolu dinay tegtale ak mucc ci moom ak amuk doom goo xam ne yàlla mën na ko def muy góor ba tayit bu dee jigéen nga gënd ñu lay takkal jaaru loolu it sëy lay tegtale nay tegtale amuk doom ba tayit bu dee góor la gënd ñu koy takkal jaaru loolu it yokkute la ci wàllu ay mbiram loolu it dugg la ci wàllu sëy ba tayit gént ñu lay takkal jaaro loolu ubbiku la ba tayit loolu yokkute la ba tey it loolu day nekk aju ju faju gént mel ni danga takk jaaro hmm, ala kulli xaalin loolu baax na gént ñu lay jox jaaro baax na jaaro or nag moo baaxut ci wàllu gént waaye bu dee xaalis baax na or moom ñu la koy takkal loolu naqar la booy am ci nit woy la jafe-jafe boo xam nit dañ la ko teg moom it dinay tegtale ngay gént di takk jaare or ba tey gént ñu lay takkal jaaro ak ubbeeku la ba tey gént ñu lay takkal jaaro xaalis ak am lay tegtale ba tey it gént ñu lay takkal jaaro sëy bu neex lay tegtale mbir yoo xam ne dinga ci am lu faw ko sa njortu wa ilaa mbir yoo xam ne dinga ci am aajo ju faju incha allahu rabbi ba tey gént ñu jox la jaaro gént ñu jox la jaaro baax na loolu dinay tegtale yaakaar juy sotti incha allahu rabbi batay dinay tektale lu la jafe won sun borom di lako yombal danay def ñen ñi ñu gënt leen jox jaar kon kulli halin jaaro ci walu gënt lu ci ëpp mbégte lay tegtale lu ci ëpp aaje ju faju lay tektale inshallah rabbi kon ala kulli halin mbokk yi mën ngeena jël numéro yi 78 443 75 27 ñi nga xam dañoo bëgg lu aju ci walu firi gënt way la ñu bëgg ku leen defal seet wala listixaar incha allah rabbi mën ñoo jël numéro yi 78 443 75 27 wala ñi nga xam nag dañoo jafe-jafe ci wàllu tawat moo xam hémorroïde wala ndox siti wa ilaa góor gu néew kàttan incha allah rabbi wa ilaa ñi nga xam dañoo am jafe-jafe ci wàllu farrat moo xam jigéen wala góor incha allah rabbi bu ngeen jëlee numéro yi woote ci incha allah am nañ ci ay tegtal bu dee ñi nga xam dañoo aajowoo gént nag bu dee fi ñuy tonto message yi ci compte bi loolu gratuit la kenn di ci fay dara waaye bu dee koo xam dangaa woote sa ci téléphone bi way laa nga envoyé vocal na ngay bàyyi xel ne firi gént yi dafa am addiyee joo xam ne moom lañ ciy joxe pour nit ñëpp bàyyi ko xel bu baax ndax loolu moo tax euh, liggéey bi di gën a dox kon ko jot daa yombut incha allah rabbi kon ñu bàyyi ci xel baax 78 443 75 27 kon loolu ma aju ci wàllu gént ñu lay takkal jaaro wa ilaa gént ñu jox la jaaro incha allah rabbi lu mat a bàyyi xel bu baax